ay bismillah bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi barakaatu mbokk yi man la Marietou incha allah fas yéene dellusiwaat tey ci kàttanu yàlla fii ci saveur planétaire euh, tey dañu fas yéene beñe incha allah ay beñe coppati euh, yu Mère Diop comme ni ma ko baaxoo di waxee rek macha allah euh, ku xam Mère xam ko ci ñamantu yu sew sewaan lépp incha allah ci kàttanu yàlla fas yéene waajal weeru koor gi boole ko kafe yu tàng yeeg tee yu tàng yeeg yépp Eh, di ñaan yàlla may ñu ñu fekk ko ñun ñëpp ratal ko incha allah fas yéene indi menu boo xamante ne que eh, pour ay iftar lay doon ndog yi bu ci yàlla àndee ay bon li ñu gis ni suñu bool ñi ngi fi ak 2 eh, kg de farine mooy farine boulangère bi bi ñuy defaree mburu yeeg yooyu all purpose flour fii ñi ngi fi ak suñu sucre brown sugar ku mu neex mën nga jël sucre bu la neex donc fii ñi ngi fi ak 500 grammes de sucre donc ñi ngi fi ak 2 kg de farine 500 grammes de sucre euh, nen yi ñu ngi fi cinq cinq nen whole egg yëpp blanc beeg jaune bi yëpp la ñu boole li ñu gis fi sunu bool bi euh, zeste wu ñetti orange yu mag la ak jus bi voilà donc mi ngi nii euh, orange zeste moo nekk ni ak jus bi fi ñu ngi fi ak suñu muscade fi ñu ngi fi ak suñu raisin sec fii nii ñu ngi fi ak suñu vanille extract vanille be nekk noonu lait suñu lait concentré sucré bi la mooy meewu Nestlé euh, bu kii bi bu sucré bi euh, dama ko ci sànni mais mère Diop moom ndaxu meew nido la daan def mais comme nido sori na ma bii laa ciy def ñu dimbale it suñu beñe mu gën a toqi toqi voilà fii ñi ngi fi ak euh, sunu beurre gis ngeen ko ni cent 227 grammes dañu ñëw ruyal ko beurre de table la ñu jël jëluma margarine bi yoon te amul xorom mi ngi ni unsalted bi la voilà légui fi ñi ngi fi ak suñu levure alza gis ngeen ko ni moom mooy levure euh, euh, pâtissière bi levure chimique bi donc bi ñetti sachet lañ ciy jël donc benn sachet bu nekk pour 250 cent grammes de farine normalement quatre la ñu waroon jël mais ñun ñett rek la ñuy jël incha allah trois sachets fii ñu ngi fi ak suñu coco mi ngi nii koko bi ñu xoos gis ngeen ko nii léegi dañuy jël suñu benn pincée de sel moom it léegi li ñuy def coco bi. naan réel li léegi mu ñëw dugg si fi ingrédients yi dañuy def wet ingredients and the dry ones donc lii mooy ingrédients yi nga xamante ne yu sec yi la moom la ñuy boole ne ko réel gis ngeen leen nii bu ñu paree nag ingrédients yi nga xamante ne yu tooy yi la voilà yii ñoom it ñu boole leen ne leen réel gis ngeen leen nii fële voilà daal di ruyal suñu beurre mu ngoog bër ba ngay ficcaxu nag di jaar ci suuf man xamul lu ko tee réglé ñëw vanille bi ne ko ci tuy gis ngeen ko noonu mu saf ko ku am euh, eau de fleur d'oranger mën nga ko ci def léegi fii nii suñu lait concentré sucré bi carnation milk bi fii lañ ko naan tuy mu ànd ak yu tooy yi moom it gis ngeen ko nii macha allah voilà léegi su ko defee ñu royal beurre bi te dellu si aywa léegi beurre bi dañuy ñëw def ko ci microwave bi fondre ko incha allah su ko defee moom it xaaral ñu domp ci muscade bi voilà bañu moom saf muscade yàqu ko jël raisin sec bi nekk ci tuy voilà su ko defee xorom si voilà c'est bon tiital ko noonu rek ak xorom si pour mu tem-temi mu ngoog léegi ñu ñëw ruyal beurre bi incha allah levure mën na ñëw bokk ci coow li trois sachets yëpp mën nañu ñëw incha allah mbokk yi gis ngeen ni beurre baa ngi nii ruyal nañ ko ba pare léegi gis ngeen ni benn ci élément mère Diop yi dañu fàtte woon mooy diw ñor dafay laalaale tuuti diw ñor fii voilà gis ngeen ko noonu léegi moom it day ñëw bokk si ci sa mbaxloo gi fii voilà gis ngeen ko noonu lañuy ñëw jaxase ba mu jaxasoo ku mu neex mën nga ci def sa meewu goloriyaatam mooy euh, beneen bi evaporate milk bi léegi lii xaaral ma kii ko ba mu gën jaxasoo incha allah après ñu ñëw fii suñu yeneen yu bu bay ñoom it jaxase leen ñoom ñëpp ba mu jaxasoo bien bon léegi xam naa damay obligé sotti ko ci bool bi gën a mag ñu boole nag yëpp combine jël wet ingrédients yi ne ko tuy ci dry ingredients yi boole leen daal di jaxase. Euh, mbokk yi gis ngeen dama ci bëgg sànni tuuti evaporate milk bi tuuti rek yokk ko ci suñu ñambaan war a tolloog voilà benn kuddu muus parce que bëgguma mu nekk ay bonbon dama bëgg mu nekk beñe bu kii ku mu neex nag mën nga ko def mu nekk bonbon donc loolu mooy pat bi nu mu gën a woowee boo ko saafee après day nekk bonbon li mag ñi naan bong bong ko <laughs> mu daal di bong bongu voilà mais boo bëggee mu nekk ay beñe sànni jamra ñoom coppati ñoo ñoom këmax voilà pat bi na xaw a tooy tuuti donc ñi maa ngi ñëw nag jël yuubu yaabe yi ñëw ne ah, bismilla mbokk yi kon nag moo gis ngeen ingrédients yaa ngi ni boole nañ ko léegi dañuy ñëw jaxase leen bien bon waaw dañuy ñëw jaxase ko ba yëpp yëpp yëpp yëpp macha allah euh, daal di jaxasoo gis ngeen ko nii mbokk yi gis ngeen ko nii pat bi duñ ko def mu gën a tooy wala mu gën dëgër nii ni lañ koy bay lek damay continuer diko yëngal bu mu gëna a machallah ba pat bi gëna japp forme ba noppaliku inshallah su ko defee nag ñu dal diko euh mur ko wala ñu tej ko sax bol bi amna na kubéer ba subaam jàmm ci kàttanu yalla ñu soog koo ay wa suñu beñe bi nak mom machallah dañu fasiyene ak mom ba Washington <laughs> sama benn chamuñ bu lakala bu ñu naan Abdallah ndir chéri <laughs> chéri amin tambeng Masyaallah, pandir <laughs> pandir sa beje yaa kom ñëw comme ça nga bàyyi mu tout tranquille <laughs> waaw boo mënatul ñaanal saveur <laughs> planétaire daal bàyyil di ko ayo bismillah ah, bismillah mbokk yi ma ngoog suñu pat baa ni reposé na guddi gi yëpp macha allah léegi dañuy ñëw rek coppati ne ko duut ci diwlin bi coppati di saaf incha allah ma ngoog diwlin bi bañ a tàng torop torop torop torop comme ça bi mën a ñor ba ci kanam mangkok, habis ah bismillah mbokk yi gis ngeen ko ni. Ni la ñuy def jël suñ papier absorbant teg ko ni, jël suñu kii di seet di ci def gis ngeen ko ni. dina am ay raisin yu rëcc nag comme yi mais ci biir raisin yaa ngi ne guuj waaw toog jàpp fa ñàmborom xam naa pan bir te lo xolam di sedd sama walé bobu nga xamné ne lu ma leneen defu ko <laughs> waaye na xamné ne saveur planétaire lay mu jëg mom léegi mbokk yi dama leen bëgg defal benn taxaw seetlu incha allah ay eh, bismillah mbokk yi gis ngeen ni pat bi su ma ni ba jël ba pare am na ñoo xam ne dañ koy téye dànk ko ni ba mu dëgër ba tëju ñu dugal ko man loolu bëgguma ko pat bi bu dee nii la mel bu dee pat bi dafa gën a ndoxe baax na mais pat bi bu melee nii eh, duma ko bëgg di def ni parce que damay bëgg beñe bi ñor ci biir tamit donte feu du laa koy toggee damay bëgg mu ñor ba tax na man dama naan ni xuncati rek gis nga bu ma nee rek ba ne ko yóot laa ko ci naan yel li ci biir gis ngeen ko nii dama ko naan nuuj rek <laughs> waaw nuuj laa koy def rek tàllal jeex na voilà donc euh, pour beñe bi mën a jël temps euh, daal di sànneeku ci biir diwlin bi <laughs> waaw sànneeku ci biir diwlin bi bien bon ba yëf yi mën a yegg ci xol bi ñor xom voilà noonu moom a ciy gënal léegi xam naa euh, tuuti ruusitu koko yeeg ñoomin raisin au fur et à mesure ñuy saaf yëf ruus ñuy seggaale encore diwlin bi pour ñu mën a am saaf bu rafet rek voilà pour ñu mën am saaf bu rafet rek macha ay mango gis ngeen ko ni macha allah yii bulbe yi ñuy gis nii euh, nen bi tout temps ni lay def ak suñu yub yaaba yi ñom beur ak ñom likoy neexal mais du ci dara léegi gis ngeen ko ni macha allah tuuti rek ngay def mu dugg ko parce que pat bi dafa jël temps mu reposer bien bon dañu ko xoyal ci guddi bi bàyyi mu fanaan gis ngeen ko ni voilà donc orange bi euh, noo ko ci gën a mën a defee rek mu gën a saf gën a neexal sa beñe dañu coppati moom orange yàqu ko voilà mi ngi ni ku amul euh, vanille extract bi bu fekkante ne am nga sa sucre vanille nga ni ko ci réel rek comme ni ko fi baaxoo di defee gis ngeen ko ni macha allah voilà léegi nag ñu ñëw defar suñu taasu café bu toog waaw fas yéene ko wàccee beñe bi <laughs> incha ah, bismillah mbokk yi gis ngeen ni macha allah suñu beñe baa ngi nii pare na mi ngi ni beñe bi war a dem Washington ci euh, Pandir Pa Abdallah Eh, papay Kendir macha allah ak Mariam eh, chéri Aminata Ami Libin sama sista bu baax boobu léegi li ñuy def gis ngeen fi dama leen bëgg yóbbu cosaan dama leen bëgg fàttali lii tuuti kafe la Nescafé menn mi fële ne la maa ci laal tuuti cannelle ndax man xam ngeen samay affaire damay bëgg léeg-léeg yëf maam am nu mu mel di you know rélli rélli angul bu ne ñu di ko fa seen lii nii suñu brown sugar la gis nga ko nii gis nga su ma ko defee nii ba pare yéen a ngi fàttaliku café frappé <laughs> café frappe, moy bati café bi ñuy di ko batiyee batiyee bati ba yef yu four may la benn mousse suko ko touti ndox touti rek liiral bi boleh, li ni ngay bolé frappé ko yëngal ba mu four ba foura foura foura four bu ko defee ñu ñëw ne ko tuy ci suñu tasse bu rafet bi macha allah daal di jël suñu ndox mu tang sot ci nga gis da fay muusee am way yow wala ñu kafe frappé te ñëw woon ay mbokk gis ngeen nii dama leen di woon ba tey gis ngeen ni suñu batti bi nii lañ koy toppee batti ko batti batti ba affaire bi jàppoon comme neex mën nga ko yemale fii terewul boo ci defee sa ndox bu tàng dina muuse mais dañu ko bëgg a bàcc bàccal rek euh, ba yëf yi gën a jàpp forme amango gis ngeen ni suñu frappé bi lii rek na parce que suñu taas bi bu ndaw la taasu espresso yooyu la donc euh, suñu cappuccino wa ngi <laughs> fii nee na reluwaay ki moy café frappé dañ koy tëyee batti ko batti batti machallah adi ndaw lamay faté di sama mag bu ki ma top ci mom dafa gañu daw ma ngi len di ñaan ngeen sàkkul ko njéggal ak yërmande yalla mom mo gënon gawli ci kër ga fo tourné rek gis ko mu café yi batti <laughs> batti batti ba yi nongi nongi kañ gis nga légui su ko bu ñu dugal ndank suñu kuddu may ko suñu yëngalu kii nga gis mu daal di muusi ma ngoog suñu café frappé ngoogu <laughs> frappé frappé léegi lu ñu gis ni tuuti muscade la rek nag met pour mu gën ko jox benn kick rek mu toqam toqami ku mu neex mën nga ko defee ak cardamome mën en général cardamome bi laay gën a laal mais fi mu nekk nii comme am bu ñu wal ba pare moo tax mi ngi ni mbokk yi lii lañ indiloon tey fii ci saveur planétaire macha allah lépp ci suñu préparation iftar euh, ndog yi weeru koor ci kàttanu yàlla li ñuy gis ni mooy sunu euh, beñe coppati bu neex bi nga xam ne mère Diop ba ko daan defee nii saf sapp ak orange zeste yi saf sapp ak coco raisin yu yàbb yëpp dara du manqué. donc suñu frappé ngi ni moom lañ ko fas yéene booleel tey waaw ñoo jël doomu tàndarma gi teg ah, mbokk yi kon nag ma ngoog suñu ndogoo ngi nii macha allah muy suñu beñee eh, coppati yi gis nga ni suñu tàndarma dañ ko xaar génne noix bi def yaawur eh, bu naturel noonu rek ci biir ku mu neex nga def ci beurre ku mu neex nga jël sa ay amande so lu la neex rek nga ni ko duut ci biir daal di ko keppaat ndànk dégg nga maam nga xam ne day gën a jàppale caf ko eh, suukaru tàndarma bi gën a wàcc tuuti voilà donc suñu café frappé ngi ne Euh, batti nañ ko ba muy xoolee benn place jël ni ndànk sunu muskat di cuuj cuujal ko ci noonu mu gën a yóbbaale yëf yi donc euh, ma ngoog di wax ne ba tey euh, incha allah ñu ngi ñaan yàlla may ñu fekk ko te tal ko weeru koor jàmm opération ndog yi nag ci lañ fas yéenee jublu bu ci yàlla ànd ak xëdd yi xëdd yi pour sàlleen yeeg. Awasal, awa sall bàyyi ma tout tranquille amna ben awa sall bo xamantene ke lu ne la may ci euh, youtube bi awa sall bàyyi tout tranquille yow sallen nga ba nga santé sall rek nga matal yëf yi <laughs> ba mu mat sekk yak oustaz ali Sall euh, bismillah kon nak di wax ni vidéo complète yang ci youtube wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mari